urbaine sept en cinq cents localités ciblées dont plus de douze à Saint-Louis entre Dagana et Podor un CRD le point sur l'avancement du projet euh, donc mené par la Sénélec 75 de tonnes de produits prohibés euh, détruites à Mbeubeuss le service d'hygiène alerte sur les risques surtout en cette période de fête. Dublon, ce vendredi, André Scott à l'appel du F24 pour s'opposer la troisième candidature de Macky Sall, réclamer la du blocus de Ousmane Sonko le rétablissement du signal de Walfadjri. Fin des national, les commissions ont bouclé les euh, donc les rapports déjà remis au coordonnateur Moustapha Niass. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain samedi. Bab Abdoulaye à la mise en onde de ce Sud Matin. Sud Matin. Isenia. Bonjour à tous. de la voie fer et axe Dakar-Tambacounda. Les travaux d'urgence avancent. Des travaux réalisés déjà à hauteur de 50%. Le train marchandises euh, devrait reprendre euh, donc service euh, au mois de janvier 2024. Le train transporteur, cette année, le ministre en charge des transports, Mansour Faye, et ses collaborateurs ont testé

du, du, du, train voyageur vers la même destination. Nous avons pris le train à partir de Pout et notre terminus sera à Djurbel pour voir l'état d'avancement des travaux. Euh, les délais sont respectés avec euh, la structure, l'entreprise, les entreprises en charge des travaux. Donc décembre, ce sera fait, ça c'est clair. C'est un engagement clair et vu l'état d'avancement, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, espérons que les trains marchandises vont relier Dakar à Tambacounda. Et c'est tout l'engagement que le chef de l'État a pris. Tous les engagements qu'il a à prendre ont été respectés. En termes social, je l'ai dit tantôt, mais aussi en termes de remise en marche du train. Vous avez vu, les, les locomotives ont été réceptionnées. Elles sont laissées pendant plusieurs mois au niveau du port de Dakar, mais aujourd'hui sont sur site à Thiès. Des wagons sont en cours de réhabilitation. Le de travail est en d'être fait. Donc nous pouvons espérer qu'à date effectivement, euh, donc tout sera opérationnel. Vous venez de suivre les propos du ministre Mansour Faye après un voyage hier en avec ses collaborateurs sur l'axe Poutiès-Diourbel. Le train devrait reprendre donc le train voyageur et le train marchandise sur l'axe Dakar-Tambacounda au plus tard en janvier 2024. Saint-Louis a accueilli un conseil régional de développement consacré à la mise en œuvre du projet d'électrification des du Sénégal sur les 500 localités ciblées plus d'une douzaine situées entre Dagana et Podor Iftandeng. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification des zones périurbaines de la région de Saint-Louis, une manière pour la direction générale de la Sénélec et les autorités administratives et locales de Saint-Louis d'échanger sur l'état d'avancement de ce projet.

universelle à l'électricité à tous les citoyens à 2025. Donc pour que tous les citoyens puissent avoir accès à une électricité fiable, de qualité, durable et rencontre a permis aux responsables la Sénélec de pouvoir recueillir les principales des acteurs locaux par rapport à ce projet. El Hadj Ndiogou Diop est le chef du département qualité, sécurité et environnement de Sénélec. Oui, en fait, dans le cadre des projets, il y aura toujours des impacts sur les populations. On peut avoir des impacts. Donc, il faudra vraiment anticiper ces impacts-là, que ce soit sur l'habitat, sur les cultures. Essayer d'anticiper sur l'évaluation de ces impacts-là, et voir exactement est-ce que dans les couloirs où nous allons cheminer, il y aura des impacts sur les populations nationale. Ainsi, sur les 500 localités ciblées par le projet dans le pays, la région de Saint-Louis en compte une douzaine, située dans les départements de Podor et d'Agana, renseigne Fidel Djemé, directeur des opérations de Weldy Lamonte, Sénégal. Concernant l'état d'avancement, nous avons débuté déjà les visites de reconnaissance et les études sont actuellement pratiquement finies. Il ne reste que les études environnementales qui vont nécessiter encore euh, deux mois. Sud FM. Destruction hier de 75 tonnes de produits euh, périmés ou altérés à Mbeubeuss par le service national d'hygiène des produits saisis lors des activités euh, du service d'hygiène dans la région de Dakar pour la sécurité sanitaire. Euh, le chef du service régional invite les commerçants à plus de patriotisme, les populations à plus de vigilance et l'État à renforcer les moyens pour une lutte plus efficace. Lieutenant Armand Sec, chef du service régional de l'hygiène de Dakar au micro de Moussa Thiam. On est à 75 tonnes de produits qui a été déjà détruit. Et il reste aussi un stock qui est au niveau de la, sous-brigade de Sicap Mais aujourd'hui, on a détruit tonnes de produits prohibés, donc euh, de produits divers, de denrées alimentaires qui a été saisi par les éléments du service national de l'hygiène de la région de Dakar. Les commerçants doivent être quand même honnêtes. Il faut au moins avoir l'honnêteté de ou bien des produits qui sont périmés, donc produits impropres à la consommation. La population doit faire très attention. il faut impérativement vérifier ce que l'on achète parce que la santé n'a pas de prix. Et nous voyons ce qui se passe actuellement par rapport à notre, système de consommation. Nous allons renforcer la vigilance, Nous allons faire notre mieux pour accélérer davantage les contrôles et, augmenter le nombre de descentes. Parce que les a regardé par certains commerçants. je ne dirais pas tout le monde, quoi, mais certains commerçants qui sont au moins euh, il faut que les populations fassent très attention à l'approche de cette fête pour ne pas acheter n'importe quoi. Et les qui vont veiller. Donc on va faire le maximum pour sécuriser Parce que bien vrai que le personnel, on ne dirait pas que c'est insuffisant, mais aussi quand on l'augmente quand même ça sera mieux. Nous remercions a eu augmentation du recrutement au niveau du service des jeunes. Mais je dirais que peut-être c'est un code qui est ancien, parce qu'un code de développement d'aujourd'hui, on doit pouvoir au moins l'améliorer. dans un sens d'augmenter sa, capacité. Peut-être il y a quand même des infractions qu'on peut notifier et qui ne sont pas prises en compte par le code de l'hygiène, qu'on par rapport maintenant aux réformes, pour essayer au moins d'améliorer ce que nous quelqu'un qui, qui, qui, nous vend des produits qui sont prohibés et que le code n'a pas pris en compte par rapport aux, aux ou bien par rapport à la réprimande. Euh, parlons de la lutte contre le vol de bétail. L'association nationale installe son comité communal de Latmengue. Les acteurs demandent l'application rigoureuse de la loi criminalisant le vol de bétail, un véritable fléau rien qu'entre et 21 000 têtes ont été volées et Dans sa logique de faire un maillage national, l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail a installé son comité communal à Latmengue après celui d'un drame escale. Ces acteurs veulent éradiquer ce phénomène qui gangrène leur développement socio Plus de 21 000 têtes étant volées entre et près de têtes ont été euh, volés, desquels il n'y a que 11 000 euh, qui euh, Près de 9 000 complètement perdus. Il l'a dit tout à l'heure, M. Bitey. Il l'a dit tout à l'heure, M. Sow. Ça montre que des pas ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Ibrahima Diassé et compagnie demandent l'application rigoureuse de la loi contre le vol de bétail. Vous nous appelez à jouer pleinement notre rôle. C'est le rôle d'approche, conscientiser les décideurs afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Une fois, c'est de voter une loi, de le promulguer, mais une deuxième fois, c'est de l'exploiter à bon escient. Et ça pose problème jusqu'à présent. De son côté, le maire de Latmengue invite toute la population sénégalaise à une franche collaboration pour stopper ce fléau. Donc je voudrais alerter la population sénégalaise, en commençant par la commune de Latmengue, sur le niveau de ce fléau. Et qu'il faut que chacun d'entre nous y mette du sien pour qu'on parviennent. Parce que s'il y avait des voleurs sans wrestler, ou sans collaborateurs de voleurs, ou collaborateur de wrestlers, le fléau allait s'estomper. et ça, c'est tout Sénégalais qui est concerné. Donc, j'en appelle à la collaboration de nos communautés locales avec les services ou les forces de défense et de sécurité. Le vol de bétail constitue un frein pour l'autosuffisance en moutons, raison pour laquelle ils alertent sur ce fléau qui, selon eux, si on n'y prend pas garde, risque d'anéantir tous les efforts de développement des acteurs. Latmengue, Biramandiaï sur FM. Sud FM, l'info, c'est ici.

Walfadjri réclamait la levée du blocus établi autour du domicile du leader du parti PASTEF Ousmane Sonko du blanc partout pour tous le F24 déterminé à mener le euh, combat aucun euh, préfet euh, président ne pourra interdire la plateforme euh, de mener ses activités. Le dialogue national a lui euh, pris euh, fin ce jeudi. Les huit commissions ont procédé à la remise de leur rapport au coordonnateur Moustapha Niasse. Selon le communiqué, des consensus forts ont été trouvés, notamment sur les questions politiques. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain samedi, Abdoulaye Diop. Les rideaux sont tombés sur les travaux du dialogue national. Les huit commissions avaient procédé le 9 juin dernier au lancement des dix travaux. Ils ont remis officiellement leur rapport ce jeudi au coordonnateur Moustapha Niasse. Selon le communiqué, tous les présidents de commission se sont félicités de l'engagement des citoyens pour travailler avec vigueur et dans le respect du temps limité qui leur avait été donné. La note d'informer que des consensus presses les plus complexes, lit-on, tout en se réjouissant de la contribution de qualité au niveau de toutes les commissions apportées par les nouvelles personnalités. Le coordonnateur qui a remercié les participants au nom du chef de l'État a fait savoir que ce dernier le fera en personne ce samedi lors de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national, et ce en attendant que la commission de synthèse présidée par Marie-Angélique Savané puisse condensée au coordonnateur du dialogue national, précise le communiqué, et ce dernier acte sera posé ce vendredi au retour du président de la République à qui sera remis le rapport général des travaux, Abdoulaye Diop, euh, la commission politique du dialogue national a également remis euh, ses euh, conclusions. Déthié Faye, membre du pôle des non-alignés, revient en détail sur les points d'accord et les points de discorde, notamment concernant la question du troisième mandat. Déthié Faye que vous pourrez entendre tout à l'heure dans la seconde édition. Fin de cette première mariage. Merci à vous, Adjaratou Seigneur. Seconde édition à première radio privée du Sénégal. Sud FM. Il est 7 heures. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diiwaan salaamaaleykum Haji Maodo Faye. waaleykum salaam soxna Maodo. ñu ngi ci aljuma ñaar fukki fan ak ñett ci weerub juin 2023 xibaar ñu tàmbali ko ak saxaar ga gi nga xam ne am na ñu yaakaar ne dina tàmbaliwaat daw foofee diggante Thiès ak Tamba. ah kay asalaamaaleykum mbokk yi fi ñu toll nii liggéey bi mu ngi wéy tey tamit téeméer bu nekk juróom fukk yi jot nañ koo def. Mansour fay di gën a feddali kàddu yooyu lay daañu ci dikk gi ci biir xabaar yi courant bi nga xam ne tam dañ koy xëcc muy gën a yaatu fii nu toll ni lu toll ak juróomi téeméeri béréb yoo xam ni boori Ndar ak Daganaak ak itam euh, ba ba ngay dem sax podoor am na benn jotaay buñ ci amaloon ngir waxtaanee mbir yooyu la daañu ci dikk gi ci biir xabaar yi juróom-ñaar fukki. tonn ak juróom yoo xam ne daanaka ay jumtukaay la yoo xam ne yi dañ koy aaye dañ ko taal mu tàkk daal ba nekk ab sën eh, wala boog ngeen baal ma ñu taal ko ba def ko ab sébbu daañ ci dikkale géey ci biir xabaar yi daañ ci toftal itam ne ji ñi nga xam ne ñoom wax nañu ne ànduñu ci eh, njiit réew mi di président Macky Sall mu fabaat ndëndëm tegaat ko ci biir yëf yi ñëpp sol lu weex daan ci dikk léegi toftal ci yeneen i xabaar. bu ñu taaxee loo mu daal di yaatal moom Hadj Maodo Faye ci Maodo Faye mbokk juróom-ñaari waxtu moo dem ba feggoog ñaari minute ca ndimb ak kër Momar Sarr ñu daal di leen di fas yéene jottali xabaar yi li aju yi tamit ci defaraat yoonu saxaar gi jóge fii ci biir Ndakaaru ba ba ngay dem Tambacounda liggéey bi mi ngi am ay jéego yu mag yoo xam ne mi ngi koy amandi gannaaw ba ñu nemmeekoo ne bu ñu xaymaa sax téeméer bu nekk juróom fukk yi maanaam genn wàll ga kon jot nañ ko def itam jëwriñ ji ñu gàll ci am ndoddam fànn boobule di Mansour Faye ne euh, fii ni ak ñi muy àndal li liggéey mbir yooyu xool nañ mbir yi doon ko natt ba xam waaye daal lépp fi nu toll ni mucc na ayib ñu déglu ko ci micro Babacar Ndaw question sociale yëpp léegi réglé nañ ko dala nañ seen xel ba fi représentant de travailleurs taxaw léegi dégg ko wax na ko lu ci des rek mooy liggéey bi jeex comme ni ñu ko tàmbalee fii léegi décembre deux mille vingt trois di ñëw comme ça en janvier day train marchandise train marchandise laa wax mën na jógee port de Dakar dem ba Tambacounda loolu moom jumtuwaay yëpp jël nañ ko te dana daw bu travaux jeexee euh, décembre bi di ñëw fii léegi janvier deux mille vingt quatre train marchandise bi dana daw ñu war a séntu nag maintenant les train voyageurs train voyageurs yi. daañu xool ci peut-être voilà ay euh, mois yu néew xëy na fii léeg année 2024 nan la ñu mën a dawalee les trains voyageurs ak sécurité parce que train marchandise wute nag train voyageur euh, da ngay jël beaucoup plus de sécurité beaucoup plus de confort que les trains voyageurs mën a daw waaye xëy na avant boobu comme section Thiès Diourbel Touba dana baax daañu xool nu ñu mënee dawal section boobule mais en respectant les normes de sécurité tant que respecté normes de sécurité moo ñu amuñu les autorisations nécessaires train bi voyageurs du daw donc daañ jël jumtuwaay yooyu pour que ñu mën a daw de telle sorte que ni xëy na daañu def ay mécanismes yoo xam ni nit ñi mën nañoo jóge Dakar ñëw Thiès dem ba Touba wala dem ba Diourbel wala même dem ba Tivaouane loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey ak les chemins de fer ak aussi avec les grands trains du Sénégal. kooku di Mansour Faye ca Ndar euh, euh, alxames jamalo nañ fa jotaay boo xam ne bii diwaan boobu dañu doon seet rek daal wàllu courant bi ak dëkk yi nu ñu mën a fexe ba wër kondomba ba euh, courant bi gën a yaatu ci li leen wër itam loolee luy tolloog juróomi téeméeri béréb yoo xam ne wala ay dëkkuwaay wala ay kër yoo wala bokk ay dëkk yoo xam ne dafa gétti béréb yooyu le fas yéene nañu daal itam Euh, ci Sénégal gi yëpp itam daal ba gën ko yaatal bu baax a baax li ko tàmbalee ndar ba ba ngay dem ci yenn béréb yi fu mel ne Dagana podoor lañ ca jiwli rek mooy fexe ba waxtaane ko itam jotaay boobu it amoon na Yves Tendeng ndaje bi ñoo ko amal ci lu soxal tëralinu projet électrification zone périurbaine yu région bu Saint-Louis ñi nga xam ne ñoo jiite kuréelu Sénélec daal di ci weccoo ak ñi nga xam ni ñooy autorité administrative ak locale yu diwaan gi ci lépp lu soxal liggéey bi ñu def jëmale ko ci projet boobu boobulee muy CRD bi nga xam ni kii di adjoint bu gouverneur bu Ndar di faatu Mokhtar Fall moo ko daal di jiite. CRD bi ñu ngi ko tëgg ci euh, ñaanu waa Sénélec xamante ne ni ñoom ñooy maanaam fexe ba bépp ku yeewoo Sénégal mën a am courant bu doy courant bu baax courant bu gën ci tamit loo xamante ne du am benn dog-dog ci benn gàllankoor donc euh, ci biir programme boobu ñu am euh, liggéey bi di ko doxal ak entreprise bi ñuy wax la Lamont donc ñu leen di jaajëfal bu baax ci déplacement bi donc ñoom ak waa Sénélec ñoo fi ñëwoon tey ngir waxtaan ak acteurs yi ma lim léegi ni ci euh, li tax a jóg projet bi ak naka lañ koy doxalee. ndaje bi daal di tax ba ñi nga xam ni ñoo jiite kuréelu Sénélec mën a xam ñii di acteurs loko yi lan la ñuy xaarandi ci projet bi lee kii di El Hadj Ndiogou Diop moom la ñu dënk lépp luy qualité sécurité ak environnement ci biir Sénélec. expliquer un peu wax ak population bi waxtaan ak ñoom ci projet bi nga xam ne Sénélec mi ngi koy mëbët di ko dérouler. ci accès universel bi et que anticiper ñun tamit bu fekkee ni projet bi dina parce que ku wax projet rek wax peut dina am ay jeexital yu mu am ci nit ñi wala ci seen activité. ci juróomi téeméeri gox yi nga xamee ni projet bi tànn na leen ngir yóbbu fa courant daanaka Ndar am na lu toll ci fukk ak ñaari gox yi nga xamee ni ñoo ngi ci département bu Dagana ak Podor buñ sukkandikoo ci kàddu kii di Fidèle Diémé mi nga xamee ni moom la ñu dënk lépp luy opération ci société Weldy Lamont Sénégal. fu mu ne nii région de Saint-Louis la ñu commencé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 loolee tax na ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mbir moomu defoon nañ ci ab liggéey mu di ay nit yoo xam ne dañuy nemmeeku li ñuy lekk bu fekkente ne baaxul ñu roñ ko bañ ko roñee yóbbu nañ ko fële ca mbëbës def ko ay call lu jiitu ñu koy def ay ay sébbu euh, taal ko ba sawara wi tàkk gëndaxle mu jeex tàkk ndax loolee nit ñi war nañoo bàyyi xel loolu daal ne mën na indi ay tooxi doona ci wàllu wér-gi-yaram liet na Armand Seck waxtaan ci ak El Hadji tey yàq nañu daanaka juróom juróom-ñaar fukki tonnes ak juróom des na à peu lu mot ñaar fukki tonnes ak juróom boo xam ne brigade Kër Massar ak sous brigade Sicap Mbao camion bi nga xam ne moom moo waroon indi produit boobu moom moo paanoon bi loolu moo tax produit boobu chargé wuñ ko mais nii nii am na benn camion bu dem pour jëli ko pour ñu mun ko détruire donc tey daal daanaka mën nañu xayma ne dakaar région bi taxaw na pour détruire téeméeri tonu tonu lekk boo xam ne baaxatul fi mu toll nii dañoo jël tëmtalaayu kattan pour renforcer li nga xam xam ne moom mooy suñu liggéey renforcer ko surtout ci jamonoy tabaski bii ñu jëm nii ndax buñ ko deful donc ñi nga xam ne li leen tax a jóg baaxul dañuy def seen këmtalaayu kattan pour jaay ñu ay produits yoo xam ne dafa périmé am na ñoo xam ne produit bi day périmé ñu xoos date de péremption bi yokk beneen date te produit périmé wala ñàkk a périmé taxul mu am qualité parce que am na produit boo xam ne mën na altéré maanaam produit bi mën na yàqu te fekk date de sax jotagul donc il faut que bi ñu ñaaxaat leen ñu góorgóorlu gën a gëstu ñaax jaaykat yi tamit ñu ñu ñu waslu seen ak xool seen digganteeg suñu borom bañ a jaay nit ñi lu bon mais jëndkat yi tamit def seen këmtalaayu kattan ba li nga xam ne moom la ñuy jënd ñu mun ko saytu parce que wér-gu-yaram moom amul njëg même lu code de yàgg-yàgg infraction yi nga xam ne moom la code de l'hygiène jëloon en compte ba léegi ñu ngi ciy verbaliser d'ailleurs loolu moo waral liggéey bii ñuy def nii tey donc code la boo xam ne ba léegi mu ngi à jour moo des mooy dafa am xëy na être ay infraction yu bees wala ay jumtuwaay yu bees yoo xam ne xew na tey te xëy na bi code di am jumtuwaay yooyu amutoon loolu moo waral code bi ko woon en charge ñu bëgg a def ñu tuddee mise à jour peut jël yooyu yokk ci code waaw yan infraction yu bees yu ci mel par exemple produit yu bees xam ne moom la ñu reformuler donc am na am na système de formulation boo xam ne boo ko defee produit bi date de péremption ba mën na nekk une bonne date de péremption alors que am na loo xam ne code daf ko jëloon en charge daf ko waroon boo xam ne dafa dafa altéré yow nga tey ko xam ne produit bii dafa altéré nga jaay ko nit ki tey amuñu tey juntuwaay yu mën a permettre à ce que ñu mun cee ñu cee verbaliser mais bu code bi ñëwee ñu renforcer code bi ci wàllu ci wàllu article ba pare en même temps renforcer ci wàllu équipement dinañu permettre à ce que yenn analyse yeeg yenn situation ñu mun ko def suñuy audition ñu am code bu bees boo xam ne dina mën a dina mën a permettre à ce que service d'hygiène gën a mën a jëg a mën a liggéeyam dafa am mbootaay goo xam ne gii ca Lat Mbengue ñoom dañoo taxaw rek boole seen bopp ngir euh, euh, xeex li aju ci wàllu càccum gur gi jur gi ndax loolu daanaka euh, jiijëlu ju métti joo xam ne moo ko rey ni teyam ndax daal ñu ne nag charte boobu sax dañ ko war a wéel daan yu méttee métti ci ñi nga xam ne dañuy yeewi jurug jàmbur yi dem ci gétt yi jamono yii di sàcc rek jur gi te loolu baaxul itam ñoom nag wax nañu ne mbir la moo xam ne mii daanaka day yàq sax ba euh, jur gi ni mu waroon a gën a bare du ni bare ndax gaa yi dañuy sàcc rek di yeewi di yóbbu ci dara yeeka def jëf joo xam ji jaaduwut Birama Ndiaye ngir rek daal di am kuréel fu ne ci biir réew mi association nationale bi jóg ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub càccum jur gi daal dina taxawal comité communal am ca Latmingué ginnaaw ba nga xamante ne amal nañ ko ca Ndramé Escale acteurs yi nag lenn rek la ñu bëgg daal di fexe lépp lu jëm ci wàllub càccum jur gi ñu daal di ko dakkal ndaxte gis nañ ne day daal di nagamal seen dundin ak seen nekkin rawatina seenub koom. lu ëpp ñaar fukki junniy jur sàcc nañ leen niki atum 2020 jàpp atum 2021. métti na 2020 ba 2021. 21 430. xeet ci juróom-ñaari raison. man nañ koo liir maanaam li ci feeñ mooy 11 803. li dem seen waram ñàkk nañ ko mooy 9 627. lii la Sénégal perte ci ñaari at bilan bi nga xam ne moo ñëw 2022 2023. ñu ngi koy liggéey pareegul su paree danañ ko jox réew. El abu Aboubacar bi tey nekk njiit li ak ay ñoñam la ñoo sàkk bokk na ci ñu daal di doxal loi wa nga xamante ne dafa jóg ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu càccum jur gi. képp koo xam ne jàpp nañ la léegi nga sàcc benn ganaar wala benn xar bu xëy xam jar juróomi junne dañ lay daan 5 ans ba 10 ans. waaye dañuy multiplier li nga sàccoon. trois fois bu fekkee juróomi junni lay jar dangay ngay fukki junni ak juróom kenn appliqué ko niveau national bi ma bi ma neexali benn cour boo xam ne mas nañ jàpp benn sàcc ñu ne att nañ ko cinq ans yu mat wala juróom wala fukki at yu mat wala danañ fexe ba nga xamante ne ki jëloon dana fay juróomi junni wala fukki junni amut maa ngi ñaan président Macky Sall loi bi nañ fexe applique ko sàcc yu ndaw yi ba ci wàllam maire bu laat Mbengue di sàkku ci mboole sem sénégalais yi ñu daal di lëkkaloo ak kuréel yi nga xamante ne dañoo jóg rek ngir daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu càccum jur gi ñu bëgg nag population yi lay interpellé foofu nañu gën a jàppalante ak ñiy xeex càccum jur mooy di weer sàcc yi ak ndeyu sàcc yi defe naa noonu lañ koy tuddee muy receleur ak ñii collaborer ak ñoom ñuy déy nit ñi li ñuy def parce que bu ñu collaboré wul du mën sotti. càccum jur gi doon na la nga xamante ne mënta tax ñu daal di moomal suñu bopp ci wàllu po xar looloo waral ñu daal di yëglu ci phénomène bii nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci ñoom buñ ca jógul teel dina daal di dakkal bépp effort wa nga xamante ne ña ca yëngu ñoo ngi koy def ngir rek daal di jëmal seen bopp ca kanam rawatina ña nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu yarum jur ak càmm. mu nekkoon seen naataango Birama Ndiaye fii ci Lat Mengue ngir rajo Sud FM. Sud eh, juróom-ñaari waxtu bokk yi moo dem ba fekkoog fukki minute ak ñeent ca guy Fatou Mayga eh, ci xeet yi jëm ci wàllu politique wala mbir yi ci jëm eh, fii nu toll nii ay kàddu yooyu njiit réew mi jiite Sénégal wax na ko fële ca France loolee tax na waa F24 daal di yëlbu daal di na kët léegi nag fi nu toll nii. mbir yi mi ngi tàmbali di bëgg a leer ne njiit réew mi daa bëgg a sampaat ndëndëm gannaaw ba mu sampee nu fal ko mu sampaat nu fal ko mu bëgg a sampaat muy ñett yoon ñu ne nag loolee ñoom sax dem nañ ba ne daanaka jàggi ay charte réew mi la F24 nag itam di ko naqarlu tey tamit wax itam sax ci ajjuma ji ñu nit ñi bu ñuy ñëw di metti lu loolu ñëpp rang daal di euh, sol lu weex wane na li jaaduwul tey tamit du ci mën a ànd tey des ci mën a ànd ëllëg ngir xeex loolee nga xamee ne daanaka foqarti la wala boog bëgg a def loo xam ne lii charte réew mi mayewu ko te mooy buux rek jañ sa bopp ngir dem ci ñetteelu mandat bi. dialogue national bi fi mu toll ni waxtaan la woo xam ne wi tëj nañ ko démb gannaaw ba yeggee ca njoobaxtaan la ci alxames ji dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi nu ne. cumb yi nu ko def nag defoon ko ay pàcc pàcc ngir mën a waxtaanee na bu ci ne loolee ban ca daal dinañ koy dajale teg ko ci yoxo yi ki nga xam ne moo di Moustapha Niass Abdoulaye Diop. rideau yi kon wàccee nañ leen ci liggéeyub dialogue national bi juróom-ñetti commission yi nga xamante ni juróom-ñeent fan ci weeru juin bi ñu génn la ñu dooroon yooyu yëpp liggéey daal nañuy jébbal seen rapport alxames bi coordonnateur dialogue boobee di Moustapha Niass suñu sukkandikoo ci bataaxal bi nag président commission yëpp daan nañuy rafetlu euh, ci engagement bi nga xamante ni nag liggéeyee nañu ko ba àpp bu ñu leen joxoon ñu daal di koy jëfee donte ni sax loolee néewoon na bataaxal bi di xamle ni nag ay déggoo yu am solo daal nañu koy am euh, ñaari ci ay bés yi nga xamante ni liggéey nañ ko rawatina nag ci wàllum politique rax si dolli ñu rafetlu bu baax contribution bi nga xamante ni commission yëpp daan nañu koy indi rawatina ñi yees ñi nga xamante ni ñoo bokk si dialogue boobe coordonnateur bi daat leen ni sant ak ngërëm nag ci turup njiitu réew mi laata muy xamle nag ni moom mi le sax dina ko defal boppam niki aseer gi ñu mal ci cérémonie officielle bi ñuy tëj bile dialogue national laata te madame Marie Angélique Savané jiite dina daal di rek woyal liggéey bi dajale lépp ba mën koo daal di rek tëxañ ci ab këyit suñu sukkandikoo ci bataaxal bi li ni mel nag dees na ko def kon ci aljuma gi ginnaaw ba nga xamante ni njiitu réew mi dina delsi fii ci biir réew mi ñu daal di koy jox kon rapport général liggéeyu dialogue national boobe suñu sukkandikoo ci bataaxal bi jërëjëf lay jóob loole bañ ko tënkee ba noppi itam ci waxtaan wi ñu doon amal am ci tomb yoo xam ni ànd nañ ca dëppoo ca am ci yooyu it xaw nañ caa bañ a rawat naa nag ñetteelu mandat bii moom xawoon na fa andi këfin euh, Déthié Faye waxtaan ci ak Malamine Mané bokk na ci parrainage bi nga xam ne en deux mille dix neuf coow lu bëri indi na ko ci réew mi élection présidentielle deux mille dix neuf léegi nag euh, bi ñu waxtaanee nee nañu d' accord nañ ne lim bi nga xam ne moom lañ doon laaj ci ay signature lim boobu nañ ko wàcce euh, li ci tegu itam euh, parenage bi dootul yem rek ci nga dem ci citoyen yi ñu lay signal waaye am na lim boo xam ne boo ko amee ci ay député ñooñu mën nañ laa parrainer am na lim boo xam boo xam ne am nga ko ci maire ak président conseil départemental itam. ñooñu mën lañ laa parrainer ba nga xam ne donc euh, bunt yi bëri ñoo ubbeeku léegi pour nga mën a am parrainage loolu li muy jur mooy day wàññi buuxante bi ak euh, xëccoo bi bu loolu passé waxtaan nañu ci mbir yi nga xam ne euh, defa nekk ci code électoral bi te ay ay ata ngi ni depuis ay ati at ñu ngi ñuy ciy ŋàññi waa ne loolu dafa dëppoowul ak li nga xam ne moom la charte yi nga xam ne ñëpp déggu nañ ci àddina bi tënk moo di am ci biir code électoral bi xam ne dañoo wax ne bu fekkee dañ la daan lu ëpp juróomi at euh, boo ko tëddee ba pare itam yow sa giiru dund dootoo mën a bokk ci élection doo bokk ci liste yi doo woote duñ la doo nekk candidat te loolu doon euh, loo xam ne euh, dëppoowul ak ni nga xam ne noonu la di sàmm ak ak yelleefu doomu aadama war a demee e, ci wàllu njàng mi ci Thiès li jëm ci wàllu baccalauréat bi ak daal di nafaraat yi nga xamee ne ndongo yi xëccoo lijaasa boobule war nañ ko amal ñenn ci ñoo xam ni dañoo duppee seen bopp république des valeurs ñoom ñoo ko amal fële ca Thiès ngir waajal ñeenti fan ci weeru sulet wala nga xam ne leen mu teru ngir euh, daal gone yi rafetlu loolu mbir moomu la Babacar Ndaw parti politique bi di république des valeurs bu honorable député Thierno Alassane Sall jiite jàpp na ne jàng dañ ko jox gëdd bu am solo Mamadou Sall mooy coordonnateur euh, li ñu tuddee pré-bac fii si Thiès. président Thierno Alassane Sall ku nekk xam ko dans sa politique éducative day dajale ñi nga xam ne ñooy élèves bu terminal yi nekk Thiès yëpp lycée yëpp également wutal leen salle bi nga xam ne fi la ñu ñoom ñoo nekk fii ci Thiès defal leen ay cours de renforcement gratuit pour que ñu mën a wu ci li nga xam ne mooy euh, programme bi leen xaw a rëcc en cours d'année. xalaat bu rafet lenn ci candidat yi ñu ngi koy rafetlu. Seynabou Lo et cela nekkee en l'aise pour comprendre. dañu koy remercier rek parce que amuñu fayam aussi lu muy def nii ñun ñaan nañu yàlla pare bac aussi pour fay ko loolu yoon. man Fatou Sarr. ba cours yi moom am na importance parce que amal nañu njariñ bu baax. baax a a comprendre que aussi si a taxawaay yëpp candidat yuy waajal baccalauréat lu jiitu ñaari ayubés bu ñu sukkandikoo si monsieur Diène Makhtar professeur bu philosophie. en classe parfois élèves yi dañuy jàng mais duñu am temps ak professeurs yi nafar notion yu bëri wala professeur day expliquer mais xëy fa muy yëpp explication bi sa dégg-dégg xëy na foofu nga ne naa ñëw ci cours bu mel nii def ko fii def ko faa lu leeru foofu dana leer fii xëy na na ko professeur bi waxee fii ak na ma ko waxee fee c'est dans le même sens mais waxin bi mooy wute nekk rek la pédagogie elle est plurielle kulli xaal bu fi élève bi ñëwee dañuy ñaan yàlla rek la wax dëppoo ak njëriñam dénkaane yi la ca jiitu mooy xam ni yàlla moom dafa am tawam da koy taw day joxe suuf si day joxe doole day joxe wér du bayal kenn nag kon professeurs yi nga surtout nit bu ñu nii monsieur Diène lii la waxoon que li ma wax ci kaa bi mun na bañ a méngoo ak cas beneen. di fàttali séance nafar yooyu sax di cours de vacances pré-bac yu réew Ngor di amalaat bu jot fii ci Thiès dinañ ko tëj ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru juin bi ñu nekk Babacar Ndaw Thiès Sud FM. soxna Maria ñu ngi lay bàyyi indi foofu. jërëjëf Hachima Lo Faye ñu sant la gërëm la daal di yàlla jox dig dajee juróom-ñetti waxtu incha allah.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 Bonjour. Conclusion du dialogue politique le 8 mai de la société civile. Djibril Ning, membre de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections, confie au quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien que bien que globalement satisfaisants, ces résultats ne sont pas de nature à renforcer notre démocratie et la paix. En effet, d'après le confrère, un des membres de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections qui a participé du 9 au 21 juin aux travaux de la commission politique du dialogue national, le doyen Djibril Nying, par ailleurs membre du GRADEC, se prononce sur les résultats des 13 points d'accord, 4 désaccords et 2 points non discutés obtenus lors de ces discussions. Djibril Nying, de déclarer En attendant que la plateforme de la société civile dans laquelle nous sommes se réunisse et donne son avis sur le bilan, je peux vous dire que personnellement, j'estime qu'au vu des objectifs qui avaient été assignés à ce dialogue, à savoir mener des concertations inclusives et sincères en vue de trouver des consensus politiques forts pour renforcer notre démocratie et préserver la stabilité du pays, mais aussi de garantir un espace garantir la stabilité, les résultats du dialogue politique sont globalement positifs, même s'ils sont en retrait par rapport à ses objectifs sur certains aspects des points d'accord et surtout au désaccord. Le soleil de signaler que les travaux du dialogue national ont pris fin hier jeudi avec la remise officielle des rapports de huit commissions au coordonnateur Moustapha Niasse. Lors de la cérémonie de clôture des travaux, les présidents de commission ont salué des participants profiter du délai. Restons avec ce dialogue qui acte la révision du procès de Karim Wade avec Tribune qui affiche à sa une un deal sur le dos de la justice. D'après le confrère, les conditions de la révision du procès de Wade fils ne sont pas réunies et aucun fait ne s'est produit, aucun élément nouveau ne s'est révélé. Et toujours d'après Tribune, la révision du procès incombe à la Cour suprême et Tribune de renseigner que Wade fils est électeur et éligible depuis 2021 selon ses dernier 24 heures qui a également donné sur la révision de son procès. Dans un communiqué publié hier par les avocats de Karim Wade, certaines déclarations publiques laissent entendre que Karim Wade ne pourrait être éligible sans une modification du code électoral. Ces déclarations sont gravement erronées, souligne d'emblée les robes noires Maître Demba Siré Bathily et ses camarades informent que Karim Wade n'a pas été privé de ses droits civils et politiques par l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite du 23 mars 2015 l'a condamné en violation fondamentaux du droit pénal, comme l'ont constaté de très nombreuses décisions de justice internationale, notamment celle du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Après la révision du procès de Karim Meïssa Wade, intéressons-nous à cette protestation du f avec son dress code de vendredi blanc. Le mouvement veut ainsi afficher son opposition à une troisième candidature, renseigne le quotidien. Le quotidien. Le f veut tout simplement du blanc Aujourd'hui, les leaders du F24 appellent les populations à s'habiller en blanc à l'heure de la prière en signe de protestation et de refus du troisième mandat de Macky Sall. Le F24 enfourche tout simplement le blanc de paix. Ce n'est pas F24 Forces vives du Sénégal, mais le mouvement des Forces vives de la nation F23 qui avait déposé une demande de manifestation pour le 23 juin. Ce que F24 a prévu ce 23 juin, aucun préfet, aucun président ne peut l'interdire d'après critique. Du blanc par tous, a déclaré le F24 dans un communiqué. Le F24 qui s'insurge contre la troisième candidature du président Macky Sall. Justement, plainte à la CPI et en France, Branco à l'acte, l'État aux aguets, informe l'info. Et d'après lui, des preuves des documents ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité. Et toujours, d'après l'avocat de Ousmane Sonko, le leader de Passif Les Patriotes, éléments de preuves vérifiés, dont qui servent de support à la communication de pages transmises à la CPI et visant 112 suspects identifiés, dont de hautes autorités. Il faut de donner confrère Maître Aïssata Tall Sall. déclare, je cite, Je trouve que cette démarche de mon confrère est puérile et ridicule. En réalité, le statut de la Cour pénale internationale nous dit qu'il n'y a que trois personnes pour la saisir, à savoir un État partie, le Conseil de sécurité de l'ONU ou le procureur. Rappel, Maître Aïssata Tall Paris, il pleut des critiques Avec les relations nord-sud passées à la loupe hier dans la capitale française, d'après le soleil, sous une pluie hors saison, Macky Sall blâme la mauvaise perception qui plombe l'Afrique et vend le modèle sénégalais du financement des PME. Et pour la promotion des énergies renouvelables, 24 heures d'informer que le président Macky Sall pointe 2,5 milliards d'euros de partenaires internationaux pour le Sénégal. Et pour ce qui est du financement du mix énergétique, 1637,5 milliards ont été promis au Sénégal d'après d'après le quotidien. Le quotidien, le Sénégal figure ainsi parmi les quatre pays africains qui vont bénéficier des financements des partenaires internationaux destinés au développement des énergies renouvelables. Restons à Paris avec le soleil qui donne la parole au président français Emmanuel Macron qui indexe le système financier actuel qui ne va plus assez vite. En sport, pour le poste d'avant-centre, Aliou Cissé à l'embarras du choix. avec Jackson Boulay ou Habib en pointe. Boulaya, surnommé un numéro un sous pression par le confrère, alors que Habib Diallo est enfin libéré. Sat, le quotidien du sport, n'a pas manqué de relever que Nicolas Jackson, c'est l'atout polyvalence et que Bambadien et Famara Diou restent les grands perdants. On lutte. Sunulombe nous parle du premier gros cachet de Tyson. Il s'agissait de 6 millions de francs CFA contre Tafagay et c'était en 1997. Tyson qui a été considéré comme celui qui a révolutionné la lutte avec frappe et a marqué de son empreinte la lutte sénégalaise jusqu'à sa retraite en 2015. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.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 la revue de presse. Merci à vous, Raphaël Limanouane, pour cette revue de presse et la seconde édition de ce bloc d'information qui démarre. Nous sommes le vendredi on parle du F-24 qui appelle à porter du blanc aujourd'hui. Adresse code du f euh, euh, du président Macky Sall. Le F-24 euh, parle d'une du président Sall de choisir l'aventure du chaos à travers libéré de la loi après la déclaration du chef de l'État à Paris faisant allusion à sa troisième candidature. Le f dénonce, une forfaiture, invite les citoyens sénégalais à se mobiliser aujourd'hui en blanc euh, pour aller à la mosquée. André Scott en blanc pour dénoncer euh, la coupure du signal de Walfadjri réclamer la levée du blocus autour du domicile euh, d'Ousmane Sonko. Le dialogue national a pris fin hier. Les huit commissions ont procédé à la remise de leur rapport au coordonnateur Moustapha Niass. Des consensus forts ont été trouvés, notamment sur les questions politiques. Cérémonie officielle de clôture prévue demain samedi. Les précisions d'Abdoulaye Diop. Les rideaux sont tombés sur les travaux du dialogue national. Les huit commissions avaient procédé le 9 juin dernier au lancement des dix travaux. Ils ont remis officiellement le rapport les présidents de commission se sont félicités de l'engagement des citoyens pour travailler avec vigueur et dans le respect du temps limité qui leur avait été donné. La note d'informer que des consensus forts ont été trouvés en deux semaines de travaux, notamment sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes, lit tout en se réjouissant de la contribution de qualité au niveau de toutes les commissions apportées par les nouvelles Le coordonnateur participera en personne ce samedi lors de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national et ce en attendant que la commission de synthèse présidée par Marie-Angélique Savané puisse achever sa tâche de compilation et de recoupement pour rendre une copie récapitulative fidèle et condensée au coordonnateur du dialogue national, précise le communiqué et ce dernier acte sera posé ce vendredi au retour du président de la République à qui sera remis le Abdoulaye euh, Diop, euh, la commission politique du dialogue euh, national a ainsi remis à ses conclusions. Déthié Faye, membre du pôle des non-alignés, revient sur les points d'accord et de discorde, notamment concernant la question du troisième mandat. Déthié interrogé par Malamine Mané. Pour les parrainages citoyens, la fourchette exigée a été aussi revue à la baisse. Euh, cela constitue, euh, de notre point de vue, un pas extrêmement important parce qu'en dehors de ce parrainage citoyen, il y a la possibilité de se faire parrainer par un certain nombre de députés et euh, aussi par un certain nombre de maires ou de présidents de conseils départemental Donc ça, c'est des possibilités qui sont euh, ouvertes et qui permettront certainement d'amoindrir euh, les difficultés auxquelles on était confronté à l'élection présidentielle passée. Bon, euh, il y a par exemple l'article 28, euh, l'article 29 euh, aussi, euh, donc la modification euh, de l'article 28 peut élargir Euh, l'éventail pour, euh, pour euh, pouvoir être inscrit sur les listes La modification de l'article 29, comme je l'ai dit, remet un peu les choses aux normes euh, en mettant fin à cette interdiction définitive euh, de figurer dans le fichier électoral euh, pour certains condamnés. Modification ou non du code électoral, Karim Ouad est éligible depuis le 21 août 2020. Une précision des avocats de Karim Ouad dans un communiqué. Et puis les responsables du mouvement Kaolakti Kanam contre les méthodes utilisées par le régime en place pour tenter d'affaiblir l'opposition en affectant notamment des membres du parti PASTEF des affectations euh, qui ne font que la promotion politique de l'opposition. Le mouvement Kaolak Chikanam propose de nouvelles stratégies, Mamadou Kamara. Dans un contexte politique très mouvementé, marqué par des diatribes invectives et propos indécents, le président du mouvement Kaolak Chikanam, qui soutient les actions du président de la République, pense que l'Alliance pour la République devrait adopter une nouvelle stratégie, surtout sur le plan de la communication communication Déthié Ndao. j'ai vu que beaucoup de gens de Pastef sont affectés et le dernier est en date est l'affectation de maître Ngagne Demba à Matam et il a été chaleureusement accueilli c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette méthode je pense que le combat doit se mener au niveau des plateaux euh, télé et autres mais si tu affectes un responsable à Matam euh, cela va affecter les responsables de la majorité de cette localité et ce n'est pas la solution je présenter sur les plateaux de télé. ñu defanteeg ñoom ci plateau yi. Euh, le président du mouvement Kaolack ci kanam pense que euh, le président de la République et son staff devrait une nouvelle fois chercher tous les moins sur le plan de la communication pour convaincre l'électorat au lieu de se lancer dans des détails. Il a également appelé tous les responsables de l'Alliance pour la République et de la mouvance présidentielle à Kaulak pour mobiliser la base afin d'accompagner leur mentor, le président Macky Sall. Kaulak, Mamoudou Kamara, Sud FM. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Réhabilitation de la voie ferrée entre Dakar, Tamba, Kounda, les travaux d'urgence avancent, de 50%. La fin des travaux est prévue en décembre 2023. Le euh, passagers devraient circuler d'ici là et le train passager en janvier 2024. Ce sont les euh, assurances du ministre des Transports, Mansour Faye, qui a effectué hier un voyage en train sur l'axe Poutiès-Durbel. On écoute le ministre Mansour Faye avec Baba Karnao. Comme vous le savez, Thiès euh, est une ville de cheminots. C'est une ville du Et toute l'économie, quasiment, tourne de cette activité. en perspective, nous avons au mois de janvier 2024 la reprise du train marchandise sur Tamba. Nous nous attendons dans un avenir pas lointain la reprise euh, du, du, du, train voyageur vers la même destination. Nous avons pris le train à partir de poute et notre terminus sera à Djurbel pour voir l'état d'avancement des travaux. Euh, les délais sont respectés avec euh, la structure, l'entreprise, les entreprises en charge des travaux. Donc décembre, ce sera fait, ça c'est clair. C'est un engagement clair et vu l'état d'avancement, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, nous espérons que les trains marchandises vont relier Dakar à Tambacounda. Et c'est tout l'engagement que le chef de l'État a pris. Tous les engagements qu'il a eu à prendre ont été respectés. En termes social, je l'ai dit tantôt, mais aussi en termes de remise en marche du train. Vous avez vu les, les locomotives qui ont été réceptionnées. sont laissées pendant plusieurs mois au niveau du port de Dakar, mais aujourd'hui sont sur le site à Thiès. Donc, des wagons sont en cours de réhabilitation. Le rail de travail est en d'être fait. Donc, nous pouvons espérer qu'à date échue, effectivement, euh, donc, tout sera opérationnel. Paris a accueilli hier une rencontre consacrée la mise en œuvre du projet d'électrification des zones périurbaines du Sénégal sur les 500 localités ciblées euh, par Sénélec sur le territoire national. Saint-Louis en compte une douzaine entre Dagana et Podor, les précisions de Yves Tendeng. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification des zones périurbaines de la région de Saint-Louis. Une manière pour la direction générale de la Sénélec et les

universelle à l'électricité à tous les citoyens à 2025. Donc pour que tous les citoyens puissent avoir accès à une électricité fiable, de qualité, durable et La rencontre a permis aux responsables de la Sénélec de pouvoir recueillir les principales préoccupations des acteurs locaux par rapport à ce projet. El Hadj Ndiogou Diop est le chef du département qualité, sécurité et environnement de Sénélec. Oui, en fait, dans le cadre des projets, il y aura toujours des impacts sur les populations. On peut avoir des impacts. Donc, il faudra vraiment anticiper ces impacts-là, que ce soit sur l'habitat, sur les cultures. Essayer d'anticiper sur l'évaluation de ces impacts-là, une et voir exactement est-ce que dans les couloirs où nous allons cheminer, il y aura des impacts sur les populations nationale. Ainsi, sur les 500 localités ciblées par le projet dans le pays, la région de Saint-Louis en compte une douzaine, située dans les départements de Podor et d'Agana, renseigne Fidel Djemé, directeur des opérations de Weldi Lamonte, Sénégal. Concernant l'état d'avancement, nous avons débuté déjà les visites de reconnaissance et les études sont actuellement pratiquement finies. Il ne reste que les études environnementales qui vont nécessiter encore euh, deux Sud FM. Séance de révision générale euh, au bac, une initiative gratuite de la République des valeurs à Thiès à quelques semaines du baccalauréat. Les participants euh, saluent cette initiative à Thiès. Les précisions de Babacar Ndaw. Euh, pour la formation politique, République des valeurs Réew Ngor, l'éducation est une priorité pour une nation. Mamadou Sall est le coordinateur des séances de révision pré-bac. Depuis sept ans, on fait les cours de renforcement euh, pour les classes de terminale dans tous les lycées de Thiès. Ce programme par le président Thierno Alassane Sall

Restons à Thiès le centre culturel régional qui a abrité hier les travaux de la sixième de la SODAV pour l'exercice 2024. Près d'un milliard de nos francs euh, versés aux acteurs de la SODAV, mais les difficultés dans la mise en œuvre de la copie privée de la subvention de l'État à hauteur d'un milliard les acteurs

millions qui ont été redistribués. Donc les acteurs culturels se sont retrouvés avec plus de 900 millions, ce qui frise le milliard. Je pense que extraordinaire pour une société africaine. Surtout ans d'existence. ans en matière de gestion et de management, c'est la période de mise en place de relance. Voilà, rien que sur, la droit, sur les droits de vraiment. La là. Les ne sont pas totalement à point, bien qu'on a commencé timidement à percevoir. Donc vous voyez, En plus, maintenant, cette compression des charges, c'est vrai que d'une part, il y a la subvention de l'État que nous n'avons pas reçue entièrement, tout en rappelant aux acteurs culturels que le combat pour la concrétisation de la rémunération équitable est leur combat à tous. Tout le monde parle de pétrole au Sénégal. Le pétrole des acteurs culturels, c'est la rémunération pour copie privée. C'est une prérogative que la loi a accordée. Et cette loi, c'est l'a

vous offre les échos du pèlerinage. Pèlerinage à la Mecque pour les pèlerins du groupe euh, Marega. Départ pour euh, la Mecque ce vendredi. Auparavant, des réunions préparatoires ont eu lieu entre le staff d'encadrement et les pèlerins. Elage euh, Antoine Diagne s'est entretenu avec le directeur général de Marega, Abdoukhadre On Nous devons rendre encore grâce à Dieu de nous avoir permis d'arriver à cette étape de quatrième jour de Médine. Et comme vous l'avez constaté, on a déjà fait euh, les ziyaras euh, du mausolée du prophète Mohammed et salut sur lui. Raouda également a été fait. On a également fait les Koulouziara, les différentes rencontres de causerie, d'échange avec l'imam ont été effectuées à plus de trois, quatre reprises, suivies de questions-réponses pour permettre aux pèlerins de se préparer sur l'ultime étape du pèlerinage. Comme vous le savez, l'étape de Médine prépare le pèlerin pour le Hajj. Comme le précise toujours l'imam, c'est des périodes importantes de se concentrer se préparer pour l'éventuel En quatrième jour, la réunion d'évaluation que nous avons terminée tout à l'heure a permis de faire comprendre que les pèlerins commencent à mieux comprendre les prochaines étapes. Et ils ont eu à poser des questions sur les formules de Hajj entre Ifrat, Tamato, Hiran. L'imam est revenu dans ça. Et pour leur précision, ils n'auront pas à s'inquiéter parce que tous les pèlerins seront guidés, assistés et encadrés pour tous les rites liés au Hajj. Donc, il n'y aura pas une étape où le pèlerin sera laissé à lui-même. Il n'y aura pas. Donc, étape par étape, l'imam et tous les guides se sont mobilisés pour une seule cause, aider le pèlerin à effectuer correctement son hajj. Et nous demandons encore euh, au bon Dieu de nous faciliter, de faciliter aux pèlerins, de faciliter tous les pèlerins du monde qui sont déplacés cette année pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et nous osons espérer, Inch'Allah, que Dieu va nous apporter ce, ce crédit qui nous permettra vraiment d'effectuer correctement le prochain, Inch'Allah. Les gens ont parlé de discipline et de solidarité. Discipline et solidarité, c'est les mots forts du groupe et du regroupement. Parce que tout simplement, sans la discipline, on ne peut rien avoir. Comme vous le savez, vous l'organisation et la rigueur que nous mettons sur les guides pour qu'ils puissent assister les pèlerins. Mais derrière également, s'il n'y a pas de, de discipline du pèlerin, il y aura toujours des difficultés. Donc ça veut dire que c'est un ensemble. Il y a la rigueur, il y il y a l'engagement, mais il y a également la discipline. et ce qui permettra à tout le monde, que ce soit pour le guide, que ce soit pour le pèlerin, tous ensemble, on est tous voués pour une seule cause, c'est s'entraider, faire de la solidarité pour que le Hajj puisse être aidé. Vous le savez, il y a des personnes physiques qui sont très aptes, certaines personnes un peu faibles, et des, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieilles personnes.

Et on croit encore que va nous aider à effectuer correctement ce, ce là et dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons que tous les pèlerins qui ont quitté le Sénégal pour venir assister l'Hajj vont le faire dans les meilleures conditions et retourner au Sénégal dans les meilleures conditions. En tout cas, nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous facilite, Inch'Allah, au Rabbi. Sud fan de rue de Reims, angle Malixi. téléphone 33 842 33 93 33 849 88 11 les échos du pèlerinage. Je vous rends l'antenne, Maria. Merci à vous, Adjaratou Seigneur. On complète cette édition avec notre invité. Sud Matin, l'invité du jour. On parle de la conclusion du dialogue national avec euh, notre invité. Il s'agit de Détier Faye, membre du pôle des non-alignés et euh, à la commission politique. Il revient sur les points d'accord et parle d'avancées démocratiques. Euh, on l'écoute au micro de Malamine Mané. Bonjour Détier Faye. Vous êtes membre des non-alignés à la commission politique du dialogue national Quelle est votre impression par rapport aux conclusions du dialogue Bon, mon impression, c'est que au début, euh, on pouvait se demander euh, si, compte tenu des délais impartis, il serait possible de parvenir à définir l'examen de, de beaucoup de points. Toutes les parties prenantes euh, ayant mesuré l'importance des enjeux se sont fortement impliquées et cela nous a permis d'aboutir à des résultats excellents euh, parce que Euh, les consensus que nous avons obtenus euh, portent sur euh, des questions centrales qui constituaient depuis plusieurs années des préoccupations dans l'espace politique. Bon, vous vous rappelez, par exemple, quand vous prenez le parrainage, Vous vous rappelez de tous les incidents, toutes les contestations qu'il y a eu euh, à l'élection présidentielle de 2019. Donc, euh, les prenantes euh, en ont échangé et ont essayé de trouver euh, des euh, correctifs à toutes les insuffisances qui ont été constatées et à la base des échafourées euh, qu'on avait constatées et qui Mm, la classe politique. Quels sont précisément les points d'accord Bon, euh, il y a par exemple l'article 28, euh, l'article 29 euh, aussi, euh, donc sur la modification euh, de l'article 28 d'élargir euh, l'éventail pour pour pouvoir être inscrit les listes électorales, la modification de l'article 29, comme je l'ai dit, remet un peu Euh, les choses aux normes euh, en mettant fin à cette interdiction euh, définitive de figurer dans le fichier électoral pour certains condamnés. Dans ce sens, l'éventail a été élargi pour les possibilités de parrainage. La fourchette pour les parrainages citoyens La fourchette exigée a été aussi revue à la baisse. Cela constitue, euh, de notre point de vue, un pas extrêmement important parce qu'en dehors de ce parrainage citoyen, il y a la possibilité de se faire parrainer par un certain nombre de députés et euh, aussi par un certain nombre de maires ou de présidents de conseil départementaux. Donc ça, c'est des possibilités qui sont euh, ouvertes et qui permettront certainement d'amoindrir euh, les difficultés auxquelles on était confronté à l'élection présidentielle passée. Qu'en est-il de l'article L30 Non, c'est-à-dire euh, ce qui était visé dans deuxième alinéa, l'article L30 que ceux qui sont pour des peines euh, indiquées dans l'article L29 euh, troisième tiré devaient attendre avant de réintégrer. Mais euh, ne parle pas, ne, ne mentionne pas à des peines supérieures supérieur à, à 5 Alors, euh, c'est la raison pour laquelle au niveau de, de, de de, de l'article L29, on a précisé, comme se fait ailleurs, que euh, quand on parle d'interdiction d'être sur les fichiers électoraux, plus être euh, d'une mais que euh, la personne ayant purgé sa peine devait simplement observer une période d'attente de cinq ans pour pouvoir euh, ça pouvait être une suite de d'un article d'un alinéa de euh, l'article L30, mais euh, là où il est au niveau de l'article L29 aussi, avec le problème. que le problème, il n'est rien d'autre que euh, le fait d'interdire à quelqu'un le restant de ses jours de pouvoir participer aux élections, euh, et cela est corrigé au niveau d'une des dispositions de, de l'article L29. Mais c'est du pareil au même. Et maintenant, quels sont les points de désaccord Bon, les points de euh, de fonctions, chef de l'État, chef de, chef de les autorités en charge des, des, des, élections, etc., etc. Il y a ces, ces, la question de la troisième candidature du président Oui, la question euh, sur leur position de principe. Les, les, les, positions de principe sont connues, le, à part la, la, majorité qui considère que le texte est, est, et que la candidature était possible. Les autres entités ont considéré que euh, dans l'esprit de la Constitution et des raisons pour lesquelles les modifications ont été faites, euh, cette candidature euh, n'était pas possible. Déthié Faye, Sud FM vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre des non-alignés à la commission politique du dialogue national.